Futurs média ñi ngi leen di nuyu dellu si ak yéen ci seen spécial débat faram fàcce ni ñu koy amalee àllarba bu nekk euh, dellu nañu ci ak yéen tey tey nag euh, ni ñu ko amalee fas yéene ci ànd ak euh, ay invité ki nga xam ni moo fare ci suma ndijoor di Awa Guèye nekk premier vice présidente bu assemblée nationale bokk ci parti bi di APR honorable député ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Ngagne. voilà ñu ànd ci itam ak honorable député Ndeye Gaye nekk nekkoon vice présidente itam ci assemblée nationale nekk vice présidente bu conseil départemental bu Kébémer euh, bokk ci comité directeur bu parti démocratique Sénégal ñu ngi lay nuyu Ndeye Gaye. ñu ngi lay fay bu baax Pape. mbokk yi tey nag ma mbokk jigéen ñi laa fa yéene àndal ci seen spécial débat faram fàcce ni nga xam ne noonu lañ ko annoncé woon. Euh, ñoom itam ñu am cër ak place bu am solo ci li nga xam ni mooy émission bi euh, tey ñu fa yéene ànd ak ñoom ci actualité politique nationale bi njëkk question bi nga xam ni moom la ñuy euh, tàmbalee rek mooy débat politique bi fi mu toll am na responsabilité ñu situé ko ensemble ñu seet su responsabilité bi fan la nekk ñu situé ko bu ñu xamee responsabilité yi ba pare nag bu dee solution mën na am ñu waxtaane ko donc loolu mooy ponk bu njëkk bi nga xam ni bëgg naa ñu waxtaane ko parce que débat bi egg na foo xam ni tey am na ci man yu ma mujj a dégg yoo xam ni sama fit sax mayuma ko moo wax ko ci télévision ndax ñaaw maanaam loo xam ni jàpp naa ni sax moo gën a ñaaw li ñu dégg mu génn ci gémmiñu Abdoulaye Wade am na loo xam ni ñemewu fa egg parce que maa ngi koy gis ci ci ci ci ci euh, information yi kon mën nañu jàpp ni wax ji mën na jëm ba egg foo xam ni xëy na xalaatuñ ko woon léegi bu ñu taxawee ci responsabilité yi. ba situé ko ba pare ñu jéem a xool bu dee solution dina ci am wala déet waxtaan bi dañu koy tàmbalee ak honorable député Ndeye euh, Awa Guèye euh, nekk vice présidente premier vice présidente bu assemblée nationale bokk ci APR et je pense que ni ma posé débat bi leer na bu fekkente ni mën nañu dikk nag ci responsabilité yi parce que nekk fi di wax lee la Ablaye Wade wax lii la kii tontu leer na ci ñëpp ñëpp dégg nañ ko dégg nañu ñëw nag. responsabilité yi bu ñu ko doon situé fan lañ koy féetale fan la bàyyi ak sam lan moo tax mu am honorable député Pape Ngagne dama lay nuyu d'abord di nuyu sama sœur euh, Ndeye Guèye di nuyu aussi ñu ngi seetaan ci télévision Futur Média di profité aussi ci antenne bi parce que ñu ngi nekk ci mois de mars te ñëpp xam nañ ne mois de mars si la ñuy célébrer la femme may souhaiter jigéen ñi nekk ci àdduna bi yépp une très bonne fête di leen ñaanal yàlla aussi li nga xam ne ñu ngi ciy yëngu yàlla barkeel ko euh, Pape Ngagne sooy wax ci responsabilité bu ñu waree a yaakaar naa ne balaa ñoo situer ay responsabilité dañuy wax ay fait ba pare bu ñu waxee fait ba analyser fait ba pare si lañu mun a wax nag responsabilité bii moo engagé wala responsabilité bii moo engagé. non damay bañ fait yi juru leneen parce que xam nga c'est important. mais mooy li mu la wax ni la fait yi ump la ump ko ump ma umpul ñu bari. bu ma sañoon ñu dem directement ci responsabilité nga ne ma nii la demee ne la la demee ñu mën a nag rapidement wut leneen. bu la neexee itam bu dee noonu nga ko gisee. waaw xam nga xam nga xam nga responsabilité balaa nga ne responsabilité bi fii lañ koy situé wala fii lañ koy situé. Mhm. dañuy def d' abord diagnostic des faits li nga xam ne moo jiitu. acca maa ngi lay déglu bu ñu waxtaanee ci li nga xam ne moo jiitu ba pare nag ñu ne ah responsabilité bi kat fii lañ ko war a situé wala fii lañ ko war a situé. bi actuellement au Sénégal agité na lool. yow yaa ko wax léegi nee nga am na loo xam ne sax sa làmmañ buggoo ko tudd du ma ko tudd waaw man itam duma ko tudd mhm. waaye rek bu ñu xoolee mbir mi fa mu soqee ko mhm. yaakaar naa ne bu ñuy situer responsabilité foofu lañ ko war a su euh, situer dañuy wax nag souvent sénégalais xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam mhm. mais yaakaar naa ne boo fekkee ay nit ñuy xeex wala ñuy xuloo ki nga xam ne moo njëkk yëkkati coow li ki nga xam ne moo njëkk a tooñ kooku la ñuy war a teg responsabilité bu dee dañ ko situé. Mhm. Mhm. alors euh, honorable député Ndeye Gaye euh, nga li nga xam ni moom la euh, honorable député Awa Gueye yow lan nga ma mën a wax ci responsabilité yi moom jàpp na ni xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam loolu nag bu ko waxee dafa mel ni tooñ gi dafa la ko féetale. <laughs> merci Pape maa ngi nuyu Sénégal yëpp li leen féliciter li la féliciter en particulier hein, merci beaucoup euh, dans pays on sait. quand les débats se posent, qui les posent, est-ce que c'est de façon républicaine mhm. Parce que c'est tout ce qui nous intéresse. di nuyu nag aw gi sama rakk la waaye dafa sob nag ñëw nekkaat sama wujj nekk ma madame Cissé yow da nga dëgër fi de Pape. Mm. ñaari madame Cissé nga boole mm. waaye na nangu rek maay numéro un. d'accord alors man euh, maa ngi nuyu Sénégal yëpp aussi. parce que dañu toll ci débat boo xam ne effectivement Pape wax nga ko kuy sénégalais te bëgg Sénégal xam Sénégal xam valeur Sénégal actuellement peut-être au fond de toi am nga lu la metti trop mais awa li nga wax sa très simple pour yow tooñ bi mooy le président Abdoulaye Wade wax man damay remonter à 2008 tooñ yi 2008 la tàmbale lu ab Abdoulaye Wade wax rek macha allah. luñ ko waxoon ba pare la 2008 processus bii ñu toll nii depuis 2008 mu ngi fi di dem crescendo kenn waxul kenn dénoncé wul wax bu ne ñu jëm fi wax nañ lu ñaaw wax lu ñaaw ba jël Ablaye Wade teg ci jaat ni dee na dañ koy sóori kon bu ñu fixer le débat ci waxu mardi paase ñu nekk mercredi tey nañu wax en tant que républicain parce que lu ñu wax rek ba nit ñi di ko dénoncer y a eu pire entre 2008 et 2012 de 2012 à maintenant aussi agression bu nekk Abdoulaye wadd en tant qu'ancien président de la République mi ngi koy subir mu dem retiré wu dem en France toog fa deux ans deux ans parce que gëm na réewam gëm na doomam ñi nga xam ne moom la jox réew mi taxaw ñaanal ko mais en deux ans li ñu fi gis ëpp na li ñu fi dégg ëpp na ba mu ñëw bi mu ñëwee nag ah comme ñëw na il faut accélérer la cadence c'est moo ko que vous aimez bien que vous pratiquez sans le dire benn doom bu góor këndëng ñu jël ko tëj ko jaarale ko ci yoon boo xam ne da dul yoon ndax moom instrument juridique bu fi nekk ci reddition des comptes régime euh, alternance Abdoulaye Wade la fi ñëw. mu ne nañ ko jaarale fañ ko war a jaarale. ñu koy dénoncé di ko bañ di ko bañ di bañ ba egsi fii. duñ ni de président Macky Sall dégg nañ ci gémmiñam waaye kilifa tam boo amee njabooti bus bu ne xale yu ndaw yu xamul dara ci réew mi looloo tax mu metti parce que mag ñi waxuñu xale yu ndaw di yàq lu ne Abdoulaye Wade waaye ba ne xol óom bañ koy bës. d'accord xëy na la mu wax. état d'esprit actuel ponctuel ci la ko waxee. te bi mu ko waxee itam yaakaar naa ne. man de du ma ne waru ko woon wax. duma ne lu tax mu wax ko parce que ba mu koy wax état d'esprit ba mu nekkoon psychologiquement. xaw ma ko mais nag. li sama benn caamañ wax rek. bu ñuy wax tey waxoon di dénoncé tey dénoncé woon. Mhm. du ñu fii ndax waruñu fi woon yegg si. d' accord euh, honorable dinañu dellu si xam naa ni moom gën na dugg sax ci fay comme ni nga ko doon sollicité honorable député Awa Guèye mais dafay dellu si rek ci li mu wax ni euh, boo jàppee ni tooñ bi dafa nekk ci ñoom am na lu ko jiitu te waxu leen ko woon bari na exemple yu mu ci joxe exemple yooyu ndax mën nga ko nangul. waaw balaa may dellu ci li honorable dama koy defal benn précision léegi parce que dafa wax ne sama wujj la. Mhm. ma di ko xamal ni bàyyee naa ko jëkkër jooju. ma mhm. je suis madame Diop. voilà maintenant. Ah, loolu c'est important nga xam noonu la. voilà euh, tàqali ko fi ne. voilà jaajëf. kon bu ñu ñëwee ci li honorable wax léegi ci tooñ ji ne tooñ ji dafa yàgg depuis 2008 2012 ba ñu yegg si léegi ci 2015 mais suñu xoolee. tooñ yooyu nga xam ne amoon nañ fi mënoon nañ wax rek ne yooyu ay débat wu la woon maanaam am na benn euh, objectif bu taxaw ku nekk di xëccoo ku ci nekk di teg say stratégie pour jot loolu. Mm-hmm. te bu ñu jëlee tooñ bi muy wax na surtout en 2012 naan wax nañ fi ba yëkkati jaag teg ko ci loolu dafa amoon lu ko waraloon. te ñi ko doon def mun nañu wax ne ay xale la ñu woon mais ay magum jëmm. jaar fi ñu fi nga xam ne moom la ñu war a jaar yépp taxaw di wax yenn yi loolu dafa nekk loo xam ne lii lu garaaw la dafa wax nag ni nit boo ko puusee wax tamit ne benn doom këndam ñu jàpp ko ne ko ràpp ci kaso bi. ci lu dul yoon. ci lu yoon ci li mu wax. Mm-hmm. mais dafa am loo xam ne lii mbirum justice la comme doom ji dañu ko tuumaal. yóbbu ko pour mu leeral liñ ko tuumaal loolu wàllu justice la nañ ko bàyyee justice mu def yoonam su justice defee yoonam ba mu yegg xool xam ne kii kat li mu def dara amu ci dañ koy bàyyi ndax loolu gisoon nañ ko fii gisoon nañ ko ñu jàpp ne ko ràpp ci kasa bi ñu dem ba ci kanam ñu ne kii deful dara bàyyi ko kooku dem lekk ci ay aajoom su fekkee ne nag justice dafa xool ba xam ne kii kat ñu koy tuumaal am na bu boobaa justice day def liggéeyam mm-hmm. bu nee nag dafa sësoon wala xolama feesoon ak lenn dafay nuru leneen parce que bu ñu xoolee 100 mètres jii ñañu fa denc bari nañ lool kaar macha am na ñoo xam ne tëj nañ leen ay juróomi ay fukki at ak yëpp ñooñu am nañ ay waajur am na ñu ndey am ñu baay am nañu ay mbokk mais taxul seen mbokk yi génn ci télé yi wala ñu génn ci rajo yi di wax nit naka sudul noonu wala ngay xas nit wala ngay euh, wax wax nit loo xam ne lii lu rafetul wala ngay tam nit voilà mm-hmm. donc loolu dafa nekk loo xam ne lii lu rafetul la mm-hmm. boole si nag fi mu jugee ndax moom dafa wax ni ba ba ñu falee président Macky Sall moom daf ko ñaanal dem Europe tëdd fa loolu mooy cëram ba mu ko ñaanalee ba pare dafa dem tëdd waroon nag nekk jouer le rôle de con de de de de de conseil. Mhm. su amee lu mu war a conseiller Macky président Macky Sall xam na fa mu war a jaar. ba moom président wax na ni sollicité na pour que mu wax ak moom à plusieurs reprises mais Macky Sall moo ko dul wuyu ci conseil ak waxtaan bi xam nga Pape mhm. le président Abdoulaye Wade c'est un ancien président de la République. Mhm. bu bëggee jot président Macky Sall du ci télé bi lay taxaw naan. woote naa ko wala wax naa ko am na ay kanuwaa yoo xam ne war na fa mën a jaar ba jot président Macky Sall wax ak moom la mu bëgg a wax ak moom. Mhm. donc su defulee loolu taxaw ci tele bi rek naan woote naa wax naa yónnee naa loolu du tax ñoom ñaar ñu bëgg ñu gisee. Mm, tout à euh, boole si beneen moom mhm. dafa nekk un ancien président. Mhm. nekk nitu yoon parce que avocat la. en tant que avocat xam na ne les institutions de la république dañ ko war a respecter. en tant que njiitu réew jaar fi mu jaar yépp xam na ne am na cër boo xam ne dañ ko war a jox njiitu réew kon nag su bàyyee loolu yépp teg ko fee parce que nee na doomam tëj nañu ko muy wax yenn yu ñaaw yi man en tout cas damay am problème pour comprendre maître Abdoulaye Wade. d'accord d'accord. Euh... honorable dégg nga li nga xam ni euh, wax na ko c'est vrai que ni ma ko déggee noon nga ko déggee mais man peut-être maa ko war a ci yow pour nga mën ci tontu rek euh, li ma li mu li ma ci jàpp pour bëgg la ko wax mooy li nga xam ni wax na ko concernant du ku soxol fees rek nga jël télévision yi wax ñi ñu tëj seen i doom bari nañu wax na itam cër bi nga xam ni cëru ancien président de la république la mu war ko jox ki nga xam ni mooy naataangoom di Macky Sall te jox ko ko euh, ngay tontu ci loolu dafa am benn question boo xam ne danga ni doon waru ko woon a wax kon ku la dégg dafay mel ni eh, da nga da nga da nga revendiquer propos yooyu yow itam. je ne les revendique pas. Mhm. mais je ne condamne pas. parce que état d'esprit ba tax ba mu ko doon wax psychologiquement. Mhm. à l'instant T. comment il était. qu'est-ce mhm. qui l'a poussé à ba mu yegg foofu lu ko poussé. ba mu yegg foofu dama ne. Mhm. waruñu fa woon yegg. Mhm. xam nga euh, bu ma déggee sama sœur son développement ñoom dañuy dañoo am discours yoo xam ni suñ koy wax da nga naan voilà des gens sage malheureusement lu am APR et ses alliés seeni gune ñoo ko indi ci réew mi parce que li muy wax naan tooñ mais dama ni la man dama ni nañ remonté depuis 2008. mais Ablaye Wade il a il était président de la République jusqu'en mars 2012 mais de 2008 à 2012 li ñu ko doon wax ba dem bay génne ses bulletins de santé di wax ci moom wax ju ñaaw dem na ma yàlla baal tam bii ñuy wax mais tam nañ ko mais man c'est pas pour une raison pour cautionner loolu parce que man si ma dis que ñun en tant que femme suñu demee bay wax ci affaire bi. Euh, bu ñu ne bu ñu jéem a justifier les attitudes des uns et des autres maanaam nit ñi seen waa parti comme sama waa parti nañu xool ni yow ñun jigéen ñi toog fii Sénégal ñu nekk d'abord ci mois de mars lu metti ci réew mi ci ñun lay njëkk a daal te ba àddinay baax jigéen fu mu gis lu ñaaw dana ko dox te jigéen du def lu ñaaw du ko wax. daan na am sac am sutura am kersa mais tey seen benn élément ki mu naan Sira Ndiaye xale bu tuuti si elle a 30 ans c'est pas kon xamul dara ci Sénégal fekkewul lu bëri li mu wax tey rëy na rëy goo xam ni wa ñi doon ne waroon nañ ko condamné ñuy wax ñu nuy prêter des intentions yoo xam ne ñun nag dinañ jël ay dispositions parce que li ngeen li ñu wax dañuy taali marché. dañuy def lu ñaaw loo xam ne nii li Pape wax nit ki décence mayu la nga di ko wax pourtant ñi doon kon dam ne déggaguñu kenn parce que xale boobu su demee bay wax loolu Ablaye Wade du bàyyi moom maamam la muy xale bu ndaw di door a ñëw ci dans la landero politique xamul àddina di tëdde ëllëg mhm. gis nga poste ak cir bu mu tax ñun jigéen ñi ñu yàq su suñu njaboot ëllëg parce que mhm. li xew ci réew mi fi mu ne xale bu ci nekk tey li ngay gis sa ndey ak sa baay di ko comporté woo fa mu nekkoon démb jóge na fa wëlbati ko jàkkaar la foofu di wax lu ñaaw lu bon li mu wax ni du moom rek ay bàyyi du moom rek ñi ñu tëj li mu wax ni nañ warul jël li mu wax ni xam nga foofu déjà dafa ne ancien président de la république du Sénégal mhm. mais ki ñu tëj tam ancien ministre d'état de la république la et le seul ci liste vingt cinq personnes de le départ ñun leen fii ngeen di jaar du foofu bañuñu li ngeen ko dénkoon li ko réew mi dénkoon mu wax fa mu jaar ak lam ca def defe naa débat boobu juridique bi amul sénégalais bu mu ump léegi muy kenn kese ci list ba yépp moom doo nga ci ne ci kaso bi mm-hmm. kon bu ñu ni doomi jàmbur yeneen yaa ngi ci kaso bi kii doom doom ancien xam nga le euh, il a quand même euh, le tort d'être euh, maanaam nekk doomi Ablaye wàdd xëy na moom moo ko gën a sonal waaye nañu xam ni tam ministre d'état de la république bu ti def lu ne la ba ca la ngeen di bërki démb seen bato yi ngeen doon inauguré signature baa ngi nii moo ko fi indi kon nag nañu recadrer débat bi bu ñu wax naan doomi ñeneen ñaa ngi fi mais kii dafa dul ñeneen ministre de la république la woon ministre d'état de la république kon buñ ko jaarlee fa mu war a jaar respecter ses droits bañ ko humilier xam nga am na terme bu président Wade wax mais dañ koo def doomam jéng jéng lañ doon def loolu ñuy bañ a tudd toroxal dóor ma ni euh, buñ dugg ci loolu mm-hmm. mais ñun jigéen ñi nan rafetal sellal te jéem a defar mm-hmm. dama ni la am na ki ñu njëkkoon ax moom laa soxla woon ndax dafa am ñoo xam ni seen place tey ci wetu Macky Sall sunu frère ndax na quand di dis Macky Sall c'est le chef de parti c'est le président de tous les Sénégalais. d'accord ki ñu ki ñëw waroon a ñëw. Mhm. te ñëwul moom laa soxla woon ndax man ba ma ko fa déggee dama defoon pusoog wëñ lay nekk. ndax dafa xam Abdoulaye Wade. xam Idrissa Seck door a ñëw ci comme nekku fii ah. je vous en prie. alors euh, honorable rek waaw euh, d'accord c'est bon jigéen dafa am rôle bu mu war a jouer. d'accord honorable euh, euh, ndax dégg nga li mu wax que ni ki nga xam ni mooy Karim Wade aussi du doomu <laughs> doomu ñëpp ndax itam dafa nekkoon naataango Macky Sall ci gouvernement. comme comme ministre comme moom alors donc euh, ndax loolu mënul jox itam ki nga xam ni mooy papam nga xam ni moom itam ancien président de la république la mu am taxawaay bi mu am pour défendre aussi ki nga xam ni mooy doomam ñu ñëw nag ci privilège de juridiction yi nga xam ni hmm. moom la jàpp ni dañ ko respecté wul te mu nekkoon li nga xam ni mooy waru garam euh, Pape euh, balaa may wax ci loolu dafa wax rekk ki waroon a ñëw ki waroon a ñëw maak moom benn lañu. déedéet on est des sœurs de parti. man de moom laa gënoon soxla distinction amu fi moom mu ñëw ak man ma ñëw yëpp c'est la même chose. non non j'aurais bu la mm. neexee mais yëpp benn la. yow affaire lañ euh, la fañ la xam. ba bi ñu ñëwee léegi ci li mu wax ci Karim Wade daf ne Karim Wade c'est un ancien ministre d'État. Mm. <laughs> ça veut dire que Karim Wade a eu à gérer. des des des à gérer dans euh, am na yu bari yoo xam ne mu ngi woon ci loxoom. Mm. mu ci nas ak di sa nocc. kon du n'importe kii nekkul benn pam ngañ wala benn awagay bu ñu jël fii rek ne ko nangam dañ ko joxoon lu rëy mu téye ko di ko gérer ñu daan ko tuddee ministre jaww jeeg suuf seeg ndox meeg lépp ñu boole teg ko ci loxoom. kon tey su loolu demee ba paase. su loolu demee ba paase. ñu woo ko ne ko ah yow li nga doon gérer yépp la ñu bëgg nga leeralal ñu ko ba mu leer. alal ji nga xam ne ñu ngi naan la am nga ko nga leeral fan la alal ji jóge bu dee am nga ko nga wax am nga ko bu dee amoo ko nga wax ne amoo ko mais loolu kay lu jaadu la parce que li ñuy wax réduction des comptes. non ñoom nee nañ bañuñu loolu de ñoom li ñu wax mooy bañuñu réduction des comptes boobu li ñu bëggul mooy lu mel ni CREI nekk juridiction spéciale. muy juge Karim Wade. ñoom loolu yaakaar naa yaa ngi ko dégg waaw mais ñun CREI déjà ñun dañ ko fi fekk créé wuñu ko. Mm. CREI dañ ko fi fekk pour que. muy xeex corruption pour que aussi muy def réduction des comptes di wax ak ñi nga xam ne dañu am alal joo xam ne xamuñu alal jooju fan la jóge ndax Karim Wade boo ko jëlee en mille ñëpp fii la ñu fekk ku nekk xam na la mu amoon ak la mu ñàkkoon kon tey bu ñu toogee ba di ko prêter ay milliards et des milliards war nañ ko mën a woo laaj ko ne ko milliards ak milliards yi fan la juge su fekkoon ne laalul dara ci état bu fekkoon ne mosul gérer dara suñ ko ooyee nit ñi xaw a jaaxle mais koo xam ne lu nekk géré nga ko fii ñu woola ne la yow léegi leeralal mais loolu koy xel mën na ko nangu ñoom nag bu fekkoon ne dañ ko bëgg a naka la ñuy def dañuy jox ay avocat ay argument yu leer nañ ñu taxaw ca procès ba défendre ko ba juge xam ne kat kii lii ñu koy tuumaal tuuma kase la dara amu ci. Mhm. mais su fekkante ne dañ ko nen leeralal moom muy tëdd ne buñ ko woowee mu ne du ma wuy ji su ñëwee ne du ma wax buñ ko laajee mu ne du ma tontu. ay avocat am bu de audience ba mais loolu lu ci nit ma du liñ ko gaañ a tax no balaa ñu koy gaañ dañ ko woo mu bañ ne du wuyu si te prisonnier ya nekk ko rëbës kuñ ku ci juge ne kaay wuyu tey dañ lay ñëw jël la yóbbu nga dem wuyu ji mais moom ñu ñëw jël si ko mu ne duma dem loolu fan la ko teg moom nul n'est au-dessus de la loi. tout à fait moom sénégalais la citoyen sénégalais la te loi bi ñëpp lañ ko yemale. effectivement c'est pas parce que doomu mm-hmm. Ablaye Wade la. Mm-hmm. que su ko juge woowee mu tëdd ne du ma wuy ji. loolu teguñu ko fenn. Mm-hmm. beneen bi ci des dafa tudd sama camarade de parti Sira Ndiaye ne xale bu ndaw la mu koy yedd naan ñun jigéen ñun nii mais yaakaar naa ne xale bu ndaw kañ boo koy yedd da nga war a yedd nag mag ma nga xam ne moo am téeméeru at ba pare di njëkkee wax ju ñaaw moom dane woon léegi ah cautionné wu ma ko mais condamné wu ma ko en tant que jigéen uh-huh. mu nekk lu garaaw parce que yow boo nekkee jigéen ñu yëkkati wax ju ñaaw jooju di ko teg ci koo xam ne kii uh-huh. doomu jàmbur la yow yaa waroon a njëkk a taxaw tey defendre ko te ci kaw loolu damay remercier di féliciter ay responsable de parti yoo xam ne ñu ngi nekk ak moom ba pare taxaw ñaawlu kàddu yooyu ku mel ne Serigne Mbacké Ndiaye maa ngi koy félicité ci position boobu mu jël ku mel ne euh, euh, nu mu tuddati Euh, euh, Souleymane Ndéné Ndiaye Souleymane Ndéné Ndiaye aussi maa ngi koy sant di ko féliciter Ablaye Mbaye Peex. ma nga xam ne ca tàngoor ba la taxaw ne loolu kenn du ko wax. maa ngi koy sant di ko féliciter ku mel ni Ousmane Ngom. Mhm. parce que nag loolu mooy Sénégal. Mhm. olof nag dafa wax ni wax ju ñaaw moom dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo. d'accord. d'accord loolu loolu leer na honorable député boo déggee ki nga xam ni mooy aw Gueye yaakaar naa list bi muy lim ci ñi nga xam ni ñoo koy ñaawlu bu ñu ko doon lim du ñu fi jóge te ñoo ñëpp ci camp PDS la ñu bokk ba ñu bari sax jàpp ni Abdoulaye Wade bëgg na sauver doomam ba tas na PDS je pense que lire naa article bu mel noonu mm. bëgg na sauver doomam ba yëkkati kàddu yoo xam ni tas na PDS waaye li nga xam ni moom moom la wax itam mu nekk loo xam ni lu ñu war a bàyyi xel la muy li nga xam ni wax na ko concernant ki nga xam ni mooy Karim Wade parce que bu fekkente ni dañ ko dénkoon comme ni ñu dénkee ñëpp jaadu na aussi ñu laaj ko te bu liñ ko laajee itam li ñuy xaar du mu bañ du dara argument la ñuy xaar. mais mais euh, raisonnement vice président de l' assemblée nationale dama je suis déçu Awa yow tu parles comme le sénégalais lambda da nga ni il le ministre des ciel du ciel et de la terre mais ministère yi mu yoroon. mais def na reddition de comptes dem ba ñu jox ko quitus quitus la am ci ministère bu mu mas a yor moom Karim Wade ñu ni bien yi mu am li nga am noo ko mënee am ba muy judd baayam yor na lu bari ndeyam bokk ci famille bu riche mu takk soxna soo xam ne fa mu bokk bari nañ alal lool en tout cas loolu de lu bari ci ci opposition Abdoulaye Wade wane woo ko nag. ñaar ñaar eh, ci position ban. ci opposition Abdoulaye Wade laa. fa mu nekkoon wanewul ni amoon na alal ju bari doomam amoon na xaalis. bu bari booba Sénégal jéemu ñoo xam mooy kan. Mhm. booba Sénégal jéemuñu koo gis jéemuñu ko xam ndax ma nga woon ca Londres di liggéey yor njabootam. ak jabaram ok d'accord. Mhm. kon nag bu ñu nee li mu am te moom ministère yam ko dénkoon mu def reddition des comptes bañ jox ko kitis. Mhm. ñu ni tey li mu am na ko prouvé waa mais pourquoi moom dong dañ tàmbalee ci seen président dañuy 2000 ba 2008 gisoon nañ ko mais ma Macky Sall tamit ñu ni 2000 ba 2009 bi muy génn suñu parti xamoon nañ ko avant 2000 ñu nag moom la woon plus de 20 ans ensemble dama ne réew mi réyul awa ñëpp a xamante kon ndegam moom ma nga xam ne ci ndey ak ci baay ca ci goro am na lu mu mën a jële fenn rawati ñi nga xam ne ñoo mën kon nag dañ waxante dëgg acharnement la mais nag acharnement boobu xam nga au fond au fond le problème le réel problème du du Karim Wade lañu visé gis nga j'ai lu Pape parce que informatique bii les TIC qui sont là l'internet qui sont là qui est là les archives ki sont là dafa bari yu muy leeral parce que gis nga bien yi ñuy reproché Abdoulaye Karim Wade yëpp en 2012 c' y' avait c' était préparé une liste contre Abdoulaye Wade pour mën a taal réew mi parce que ñun dañoo xam processus bi yëpp te nag li may wax inventé wu ma ko ñañ ko séqaloon ñoo ko def léegi ci internet bi ku liir gis kon Karim Wade c' est un cas de règlement de compte politique d' abord pour xam nga man ñuy wax naan dañ ko ragal. man c'est pas ça mon problème parce que gis nga nguur yàllaa koy joxe dina la ñëpp bëgg bu ko yàlla bindul bu ñu wootee ñu gañe la mm-hmm. waaye li ñu bëgg processus ba ñu defoon 2008 Sankara fi nekkoon am attitude bu mu am envers le colon éliminé demal libi éliminé Ablaye wàdd parce que ñooñu ñëpp amuñu woon xam-xam ñu woon vision mais dañu amoon conviction peut-être à la limite Kadhafi mais le problème de Abdoulaye Wade c'est que dafa jàng xam fekke lu bari revendiquer la dignité. de du kon da nga bëgg a dëggal ni Occidentaux yi ñoo ko fi jëlee ma ni Pape Ngagne ñoo ko xeex c'est un processus qui a démarré depuis 2008 ba ñu woowee Macky Sall yóbbu ko décoré ko au Sénat français ba nga xamante ne Abdoulaye Wade yëgul tiitum jour boobu la jàmm gëj xam te y a un texte dessus boo xam ne ne sama kiiwul danaa la ci may photocopie ndax ce jour là am na discours yoo xam ne ba ci ambassadeur de France bi fi nekkoon muy Ruffin la mu wax leeral na lépp d' accord kon nag. ah de euh, urne yi wane wu ko li ngay wax. Euh, <clears throat> waaw ah, parce euh, yi moom li mu wane moom lu clair la. tu très très bien. Mhm. et très mhm. yi ñaata mouvement ñoo fi judd. te urne yi. mais ñëpp ay sénégalais lañ. ay mouvement yëpp waaw mais mouvement yi benn français nekku ci benn américain nekku ci. laisse-moi terminer. Mhm. Pape s'il te plaît. avec plaisir madame. parce que mhm. ku ne ñu jox la lu bari ne la demal génn génne wuti mouvement ku ne wutus tuut. Mhm. Ablaye Wade di génn premier quand même malgré tout. tout fait effectivement. am Macky sàll son fils. am 26 pour cent. dama leen koy ci coalition. la ca des bu buñ naan 65 pour cent mooy ndawtal yi. te nag ñaata million de Sénégalais ñoo wote woon en 2012. on a les chiffres. 4 millions moins quelques centaines quand ñooy les les électeurs du président actuel. cinq pour cent de quatre millions de Sénégalais qui ont voté loolu mooy la la représentativité. di président Macky sal mais dès l'instant que nafal nañ la ñëpp nangu. kon dama ne la processus yoo xam ne mënuñu toog fii ci benn débat di ko wax. tout mais nag les archives sont là. d'accord li am ba des nag moo di. Euh, man pour revenir à la question. li ma wax Sira Ndiaye dama koy wax. parce que li ma wax bi ma toogee dama ne ñun jigéen ñoo waroon di defar. ñoo waroon man kenn mësul dégg ma wax lu ñaaw je débat d'idées et de conviction laay def. Mhm. mais du ma xaste kon xale bu mel ne di Sira daf ma wóor ni sama doom lay maaseel su fekkente ni dem nañ ba lii am une semaine nit ñu baax ni kilifa yi mag ñi ku ne di jéem a seral mu xëy suba wax li mu wax dinaa ko wax. d'accord man nag. Mhm. ñi nga xam dañu condamné c'est leur droit. Mhm. moi j'ai dit je ne condamne pas je n'approuve pas. je suis avec mon secrétaire général jusqu'au bout. d'accord et pourquoi ça quel attitude cette attitude parce que à à l'instant où ces mots ont été prononcés par lui-même, je ne sais pas quel état d'esprit, dans quel état d'esprit ci la nekkoon. d'accord alors donc euh, honorable député Awa Gueye dégg nga li nga xam ni moom la euh, honorable député euh, Ndeye Gueye wax euh, ci l'affaire Karim par exemple pour expliquer que ni aussi. Euh, luñ ko mën a jiiñ itam ci xaalis démbam wane na ni waroon na ko mën a am ba pare itam mu joxar bi ki nga xam ne moom mooy sa leader tey muy Macky Sall euh, ne démbam ump ko Euh, te lu ñu ko mën a joxañ lu ñu mën a joxañee Karim mën nañ ko ko joxañee moom itam ci ci am am bu bu bu lewul te itam wax na lu leer ci li nga xam ni moom la ñuy wax moom lañu dénkoon Karim dégg naa ku mel ni maître El avocat de l'État mu ne amul dërëm boo xam ne ñoo ngi koy topp ne Karim daf ko jël ci alalu réew loolu itam mu nekk loo xam ne mën nañ ko euh, jàpp Pape xam nga dafa ab loo xam ne li honorable man su ma koy déglu dafa mel ne damay déglu kuy léeb ak a lippe xam nga nee na elle est dessus parce que man je parle comme le sénégalais lambda. mais moom bu ma koy déglu dafa mel ne kenn kuy nekk di léeb di lippoon. <laughs> parce que Sénégal la ñu nekk nekk ñu beneen réew te li fi xew ñëpp xam nañ ko damay commencer d'abord ci Karim li mu wax nee na. papaam dafa amoon alal yaayam am alal mu am go ay goro yu am alal <laughs> mais loolu kay bu dee am na. bu demee ba ba crée yi bu ko crée yi woowee da koy ne ah man kat lii kat si sama yaay laa ko dondoo kayit yaa ngi nii mu leer nañ lii kat si sama goro laa ko dondoo kayit yaa ngi mu leer nañ mais su fekkee ne mënul apporter benn preuve ci li liñ koy tuumaal mais loolu day doy waar. mu tudd président Macky Sall président Macky Sall bu ñu toogee ba 2015 dinaan am na alal ak nii katina man yooyu daf may def ree ndax bu ñu fàttali ko woowoon nañ fi président Macky Sall benn bés naan ko blanchiment d'argent su fekkoon ne période boobu ñoom amoon nañ ay preuve ne président Macky Sall dafa jalgati wala dafa lekk xaalisu réew mi kon tey du doon président lii mu naan dañ ko tëral ba teg ak occidentaux yeeg yooyu loolu su ma ko dégloo dafa mel ne honorable ma dafa mel ne dafa xeeb sénégalais yi wala dafa yeb sénégalais sénégalais yi fal fi Ablaye Wade en 2000 jox ko tous les pouvoirs police gendarmerie Sénat ak assemblée nationale Ablaye Wade gouverné pendant douze ans élection présidentielle ñëw ñu folli Ablaye Wade teg président Macky Sall mu naan tubaab yee def li ak tubaab yee def laa loolu yëpp sénégalais yi la soxna si. <laughs> sénégalais ñoo xool ka leen doy. ñu sànnil ko carte kart fal ko mu nekk président de la république du Sénégal muy monsieur Macky Sall. Mm-hmm. nee na natt la dañoo boolente natt. Mm-hmm. moom xanaa dafa fàtte li xewoon 2000. ndaw taal 2000 da nga koo fàtte. 2000 dès le premier tour. tous les partis de l'opposition ñoo coalisé woon jàppale Ablaye Wade pour mu mën a ab Abdou Diouf loolu c'était en 2000 te ñun bi ñu ñëwee en 2012 naka la président Macky Sall dafa dem ak coalition muy Macky 2012 ñu naan ay parti yu ndaw a ko jàppale ay parti cabine téléphonique ak ay nangam sangam mu liggéey wër réew mi yépp fu nekk mu teg fa tànkam fu nekk mu dem wax ak sénégalais yi jaay leen programme bu leer nañ sénégalais yi wóolu programme boobu voteel ko mu am 26 pour cent dem deuxième tour bi mu demee deuxième tour ñeneen ñi nga xam ne ay candidat lañ woon gañawuñu daal di ñëw ànd ak moom fal ko mu nekk président de la république di Sénégal mhm. kon soxna si buy wax ay waxu occidentaux ak mhm. ay waxu Ablaye Wade dafa taxaw moo tax ñu xeex ko loolu ay léebaku lippéen la mhm. la réalité et la leer nañu ci kanamu sénégalais yi bi ci des nag mu jëm ci toujours wàllu Karim Wade ne dañ ko simpi ci ay ñeneen ak ay ñeneen sempi wuñu ko de. Mm-hmm. ak cutisam aussi ah. waa ak cutisam bu mu wax même mun na am sax cutis si ministère yi mu gérer mais CREI yi nekk fi rek pour ñi xool ñuy gérer ministère yi de. yow tam waru fi nekk rek pour kenn mais aussi kenn. nekk fi pour kenn boo xëyoon tey nekk milliardaire. depuis deux pour kenn. dinañ la woo bàyyi ma yegg rek dinañ la woo Pape Ngagne ne la sa milliards yi foo ko jëlee loolu kat jëru xuloo jëru xeex nga ne ah man kat TFM laa doon liggéey Youssou Ndour lii la ma fay kii lii kii lii lii mu ngi nii mu leer naa ñu bala nga dem. waaye bu fekkente ne yow dañ lay prêter des milliards et des milliards di la prêter ay multiples sociétés te yow amoo benn argument bu mën taxaw ne lii kat dañ ma koy jiiñ waaye def ma ko loolu day doy waar. Mhm. CREI nag nekk lu fi Karim Wade kese. créw yi ñépp la fi nekkal ñépp la fi nekkal xëy na nag dañu commencé par le plus compliqué le plus difficile. depuis deux ans dañoo commencé. par Karim pourquoi lu tax mu gën a compliqué gën a difficile pourquoi nga jàppee ko le plus <laughs> compliqué. non yow ah, yaa ni dama ni. waaw déglu ma li tax mu nekk le plus compliqué. parce que doomu Ablaye Wade la woon. Ah, xam nañ ne dossier buñ buñ ko laalee. Abdoulaye Wade dina jóg kon kay yemul ak ñi ci kaso bi te nga ni ma ñoo yem. noo yem sax ndax ñoom ñëpp dañu am ndey am baay. Ah. mais su may wax ne c'est parce que c'est le plus compliqué il est le fils d'un ancien président de la République. Mhm. te boo ko laalee ancien président de la République dina jóg taxaw moo tax ñu ne nañu commencé ak moom mais ñeneen ñi ci des nag semaine bii rek dégg nañ une neuf personnes yoo xam mhm. ni ma waxee Pape sénégal yaa ngi ñuy seetaan sénégalais yaa ngi ñuy déglu. jarul xuloo jarul xeex am nga ay milliards sa papa doon loon milliardaire sa yaay doonu loon milliardaire bu dee am nga guro boo goro boo xam ne milliardaire la woon kenn mos koo dégg man tey laa ko mos a dégg. buñ la woowee ne la sa milliards yi foo ko jëlee société yu bari yi ñuy wax ne yaa ko moom ndax yaa ko moom wala moomoo ko nga ñëw taxaw ne société bii kat moom mu ma ko diwa ko moom këyit yaa ngi nii. Mhm. xa milliards yi ñu may wax tuumaal kat compte sangam bi ñu dur mu nangam këyit yaa ngi mu leer nañ. d'accord ñu bàyyi la nga dem. d'accord mais waaye bu fekkee ne yow. lu la wax loolu moo gënoon yomb. nga ne du ma ko def loolu moo gënoon yomb nag vraiment justement. loolu de moo gënoon yomb nag franchement su ko defee jàmmaam. dafa répondre ci question yi ngay posé yëpp. Mhm. parce que lu ñu ni Karim Wade yaa ko moom mais yéen acte notaire yi ñëw nit ñëw taxaw ni maa moom doyleen leen yaa moom lii waa Pape Ngagne neex naqari sama mbubu mi ñu ne la yaa ko moom bi ma ko solee yaa ko jëndaloon sa jabar mhm. te te jo ma sol ko danga wax lu tax nu man ma sol ko ak foo ko jële sa sa sa soxna ñëw taxaw ne ah man de mosuma koo gis Pape Ngagne mosuma koo jëndal ñu ne teewul kat yaa ko jëndal waa ma ne xam nga li tax nga yow man da ngay wax comme comme sénégalais lambda. Mhm. y analyses yoo xam ne au niveau intellectuel da ngay élevé wu doo déggandoo rek parce que li nga fi wax yëpp yépp yëpp mooy antithèse li waroon am ni mu waroon doxe renversement charge de la preuve parce que amul lu ñu teg loo xam ne nii preuve yi que Karim wàdd moomu ko mu ngi ci seeni loxo ñu ni dee moo ko moom xam nga problème bi mooy lañ leen waxoon CREI nga ni fi ngeen ka fekk waa gor si dafa ñëw fekk Abdou Diouf euh, créé woon ko ñetti nit lañ ci jugé réew mi xam ne lii du suñu valeur lii xamuñu ko toroxanante ñëlante di seetante ay ñuul ñuul xamuñu ni ko ñu ni ko teg ndax Abdou juuf la taxoon mu créé ko ñun xam nañ ko article 81 na mu jote woon réew mi ak mag ñi ko wëroon te bëggoon a taxaw jàkkaarlook moom mu wut fu mu leen téye. boo nee gorsi bi Ablaye boo nee gorsi dafa mel ni da ciy bëgg a ma ne ma ne gorsi Ablaye Wade laay wax. Ah, bi mu ñëwee da cee teg. xool ko dem ba di ko yëkkati ni ko tegg ni bu ma ko yëkkatee ñu ni damaa bëgg a protéger ñi ma àndal ëllëg mu am 30 ans ngeen ñëw yëkkati ko pour benn nit waa mais preuve mooy moom nga indi ni lii moom nga nga ni moomu ma tegal acte notarié ka ko moom ñëw taxaw ni maa moom. waaye yow la nga moomoon la nga doon gérer euh, alalu réew mi. seet nañ càmbar ba jox la kayit ni wax dëgg yàlla jëlaloo réew mi laa ndax nag am nga fi kilifa gu mag la mu waxoon 4000 milliards loolu budget senegal bu fi génnee fu mu fu mu jaar. Mhm. li ngay wax nag affaire Macky Sall la euh, ma chérie ñun yàgg nañ fi ci politique bi lañ ko waxaloon weddee weddiwuñ ko tey la tax ñu bàyyi ko. xaalis boobu dëgg la Nigéria la jóge woon te yépp ci processus bi la ma ne buñ fi indi ay waxu démb nañ wax ci wax bii luy defar réew mi li koy seddal élection yi ngay wax mhm. waaw nit ñee ko wotal nit ñee ko woteel waaye kon yow xamoo lan mooy campagne médiatique ñii ndax ñëpp a woon ci biir bërki démb madame Wade lu mu wax ci RFI mhm. mu ni moom masul dégg ñuy wax ne ab Ablaye Wade dafa bëgg jox doomam réew bi xam nga su xalaat loolu te c'était l'arme fatale bi ngeen utiliser woon ñun dañ ko dañ ko négligé woon parce que dans la constitution sénégalaise mais la consanguinité Ablaye Wade jamais o grand jamais mënul woon ma Karim Wade euh, kii ko parce que yow xoolal la constitution du Sénégal ndegam mairie rek wala conseil ñaar ñu bokk ndey ak baay euh, euh, euh, lien de parenté proche mën leen a bokk siège waxuma la baay ak doom mhm. ñu ni la tikkee ñu ni doomam mais mënul nekk c'est que même ñun on a mal communiqué là-dessus parce que dañu gëm ni sénégalais yi xam na ko xam nañ ko donc mhm. li muy wax mhm. li muy wax campagne médiatique danga nga koo xamul campagne médiatique vrai acharnement tous regroupés contre un xamuloo kon nga ne lu tax ndax damaa yeb sénégalais yi déedéet sénégalais yi boobu yi tëx nañu gumba nañu muy entre muy comment dirais-je opérateur économique média ñëpp armé woon taxaw ci Abdoulaye Wade mhm. ceeb bi doon wax c'était un montage lu ne ñu def ko na fi jóg mhm. na fi jóg d'accord mais kon d'accord bul ni mhm. affaire coalition nag benn benn parti dootul gagné uh-huh. sans coalition hmm. que ça soit au Sénégal. en Afrique ou en Europe. je mais c'est pour vous dire. que 26 pour cent de 4 de Sénégalais ñoo far. ñoo ñoom ñoom ñoom 65 pour cent de 4 millions de Sénégalais ñoo fal. Macky Sall. d'accord kon nag 10 millions yi ci des actuellement te ñi leen faloon sax tey nee nañ doy leen nañ sëkk. sëkk sëkk ndax doxalu leen yoon doxalu leen li jub. léegi ñi ngi jëm nag euh, ci délibéré bu ñu bu ñëpp di xaar mu jëm ci mbiru ki nga xam ne moom la doon wax muy Karim Wade lu aju ci loolu honorable député Awa Gueye lan ngay xaar ci lu mel noonu dégg nga ci menaces yu bari dégg nga ci wax ju bari loolu lan nga ci xaar ci délibéré boobu nga xam ne ñoo ngi ko jàpp le 23 mars incha allah ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk. Pape balaa ñuy wax ci délibéré bi nga ma tuuti rek ma dellu si si lii honorable wax hmm. honorable dafa wax ni campagne médiatique moo tax Ablaye Wade jóge fi. mais honorable xanaa dafa fàtte ne Ablaye Wade moo nekkoon au pouvoir te am na luy philosophie di di di di wax les médias d'État média d'état yooyu yëpp ñu ngi fi woon entre les mains du président de la République. Abdoulaye Wade y en avait plus lu tax utilisé wu ko woon. li am mhm. na amatul nag moom loolu leneen lay wuyu. parce que ah. nekk au pouvoir. Mhm. war a yore les médias d'état di xoole ba médias d'état yu ëpp la euh, rëcc la. Mhm. loolu c'est extrêmement grave. c'est pas grave c'est très grave corruption beneen bi ah, ci outrance c'est pas la corruption oh. bul tooñ suñu bokk nañ wax ci suñu wax waa soxna suñu waxu réew bi waa soxna si waaye loolu yow booba euh, yëf yi intéressé wu la ñu xam nañ xool sénégalais yaa ngi ñuy seetaan dama la may ah, waaw non non non dina la déglu je vous en prie amal élégance may ma manta may am na yoo xam ne sax honorable léegi mhm. dama ne mhm. boo nekkee chef d'état yore ce qu'on appelle les les les médias d'état mhm. yore armée yore police ñu ne campagne médiatique moo tax ñu tegg la teg la fële loolu leer na loolu c'est extrêmement grave d'accord beneen bi ci des mhm. dafa ne euh, Viviane Wade la dégg mu ne Ablaye Wade musta am ambition teg fi doomam mhm. loolu su ko waxee daf ñuy day bett sénégalais xam nga lu tax dévolution monarchique bañ koy wax ñoom ñu ngi fi woon toog mhm. te boole si dañoo wone wone la couleur aux élections locale de 2009 boobu lañu wone la couleur nit ñi xam ne am na ambition bu ñuy préparer kat pour Karim Wade <laughs> loolu doyul ñu indi ticket bi président vice président président buñ ko falee moom mu fal vice président. Mhm. bu ko neexee président bi démissionné vice président bi remplacé ko. Mhm. muy le 23 mars Sénégal yëpp jug ne du fi am. Mhm. donc kon bu ñu ba tey loolu yëpp paase. ñu naan man kat loolu ba mu ko waree wax. mu safee dafa passé. d'accord Viviane Wade ba mu waree génn. léegi keroog bañ defee ticket bi la waroon génn wax loolu. waaye warut a toog ba tey 2015. tout à fait léegi leeral nga loolu ba pare parce que gëm loolu. ba bi ci des. ci hmm. hmm. dafa nekk un dossier bu nekk entre les mains de la justice. Hmm. foofu li ma ciy wax du bari ndax citoyenne sénégalaise la te wóolu naa sama justice réew. donc comme saytu nañ dossier bi ba ne le 23 la ñuy def délibéré bi. ah man de lu ma ci mën mooy toog rek di xaar. waaw mais dégg nga président bu justice bi génnee ici. waaw ne Karim deful dara dañ koy bàyyi fa xayrun su fekkee ne dañu ne ah liñ koy def kat. li nga ko topp kat am na lu mu ci def nangam ak nangam la war a tëdd comme pen bu boobaay dama ciy ànd. d'accord mais bi ci des nag. Mhm. maa ngi leen di dégg ñuy wax ay marche ay lu ne lu ne ñu koy wax réew mi kenn du ko sappe kenn du sappe les les bases de la république réew mi kenn du ko déstabilité d'accord déstabiliser du mus a am mhm. Sénégal dëkku yoon la te yoon boobu ku génn ci réew mi pour jéem a sappe les bases de la république wala nga jéem a tar réew mi di nga gis leneen loo xam ne lii ci yoon lay jógee parce que les mhm. forces de l'ordre sont là l'état restera euh, nu mu tuddati voilà l'état restera toujours fort <laughs> et donc du ñu may kenn eh, looy taxawee di taal dëkk bi loolu duñ ko may kenn te loolu ñi ko war a def incha allah dina ci taxaw voilà alors euh, honorable mhm. euh, wax na ko du ngeen du leen ko du ñu leen force restera à la loi mhm. mais ku la dégg ak ni nga waxee ni nga revendiquer propos yi nga xam tukkee woon na ci Abdoulaye Wade da ngay revendiquer aussi li mu wax ni du nangu ñu juger doomam fii ak CREI condamné ko loolu da nga ciy ànd ak moom parce que nee na bakkanam la ci teg ndax yow aussi danga ko ci feeluwaale sa bakkan avant d'en arriver là mhm. da nga ne mais 2009 en comme tout bon sénégalais hein a ses droits civiques Karim Wade a été euh, candidat pour la mairie de Dakar donc c'est ça couleur pour vous et le yu Aliou Sall actuellement c'est quoi. Mm-hmm. olof euh, kon kon yu sàll moom lan la. Mm-hmm. dangeen ngeen foqati jox ko. foqati waat jox ko ndax nag xam nga ma très chère média d'état kon moom ngeen di def waaye ñun suñu média d'état dañoo nekk demoon ba nekkatuñu ci état média d'extérieur la ñu woon. kon bref ñu jàll kon léegi moom ngeen di def média d'état moo fi ne parce que liy génn ci journaux yi bu du woon média d'état ñaaw na bu doon am na ñoo xam ne du demee noonu du ma dugg nag ci débat boobu que ñoom ci seen biir seeni organe supérieur ñu ngi ciy wax beneen bi ngay wax délibéré mais Pape disons nañ waxante dëgg ñun li ñu jaaxal nee nañ CREI yi warul juger Karim renversement de la charge de la preuve yaa moom lii woneel ni moomoo ko ñu indi leen lépp ñu ni teewul ñu ni yaa moom tey dem nañ ba nga xam ni la tax nag wuy seetul woon dañu ko xañi droit toroxal ko dóor ko gaañ ko génne ay avocat ñëpp solidariser génn mu ni moon ñëwatuma ba ngay laaj nag juris yi ndax am na droit bañ a ñëw wala bañul ñëw mm-hmm. moo tax ma ni la yow awa vice président de l' assemblée nationale moom dañ ko waxee ndax sañam no sañ naa bañ a ñëw du ma dugg ci débat juridique mais dama ni sañ naa bañ a ñëw fu ñu koy toroxale te benn droit respecté wuñ ko sañ naa bañ a ñëw. Mm-hmm. ay avocat itam bu ñu xamee ne procès bi defar nañ ba teg li ñu jaaxal nag mooy réquisitoire procureur spécial. sañ naa wax délinquant mhm. économique la te ab Karim Wade en tout cas li mu doon gérer am na kitis li ngeen ko taxalit bu ci nekk ña ko moom a ngi taxaw amu ci benn bu ngeen mën a laal loxo indi teg ni lii moo ko moom kon bu demee ba ne danañ ko teg juróom-ñaari at déet na waay dañ koy xañ maanaam droit bu mu masoon am ci nit en tant que nit mhm. mais loolu même bu ko waxul woon sax dafay am waaw damay dama ne kii rek parce que loolu mhm. man soxor ak xeex nit man la au delà Karim Wade baayam lañuy ñuy visé mhm. ndax baayam dafa am fu mu jaar bu bari ak ñii ma lay wax nag te lii ma lay awa lillaay wa rasul ñun ay sénégalais lañu duggal ci lien yi duggal ci internet bi nga xool nag parce que tubaab looy seq ak moom la leer un jour ou dana ko génne kon li ma wax maa ko je le wax naa ko te tey laa ko gën a wax. Mhm. la fi jëlee Ablaye Wade dépassé na cadre sénégalais yi lii ñuy def itam mission la boo xam ne Macky sàll moom la am comme ni mu amee mission ci diine jeeg daara yi ak ci leneen ak leneen xam nga. man du ma mission ci diine ji ak bëgg wax foofu. waaw bañ ko ne affaire homosexualité lu mu wax le Sénégal n'est pas encore prêt. Mhm. Sénégal pareeguñu pour nangoo góor jigéen. Mhm. un an mooy un an xaw ma et demi ñu dugal seen projet de loi daara yi nga xam ne xale bi dootul bokkal alxuraan dootul jàng diine dootuñu ko aar ba nga xam ne li njëkk ci moom pour diwal ko ci yenn kii yi dootul am kon xale yooyu seront prêts mm-hmm. waaye nag kilifa yi mate nañ ko gis nañ ko xam nga dafa am yoo xam ne Pape man euh, euh, li may wax wallahi waxuma ko pour ma parce que dama di PDS Mm-hmm. man je suis innovadiste pur et dur jusqu'à la mort mm-hmm. xooluma keneen aw ma lobby aw ma kenn man mm-hmm. ñu bari buñ ma xamee ci opposition bi lañ ma xam parce que man waddiste la mais en même temps je une républicaine te lu may wax dama koy documenter ba mu leer ma dafa am nag débat yoo xam ni xaju fi moo tax ma ni ma bul waxee ni comme le sénégalais lambda waaye bu ñu doon wax ci dem ci débat ñu dem sujet par sujet li ma koy wax danaa ko ko démontrer par A plus B. d'accord li ci des nag mooy réew mi. Mhm. dégg nga ni ngeen di waxee mais ñun <laughs> vrai libéral ci pour tiital ko Ablaye Wade il n'a jamais été violent il n'a jamais prôné masul nekk kuy wax xeex leen yàq leen rey leen rawatina bi mu defaree réew mi ba pare. lu fi baax. lu ngeen fi inauguré wëlbati ko violence a ngi ci euh, euh, Pape parce que du ma euh, nangu acte yu mujj yi boo nee nekkul ku violent dana ma jaaxal. ma ne du ma nangu mu forcé ci policiers yi mu wax kàddu yoo xam ni. voilà Pape bien. Mhm. parce que dama gëm ni. Mhm. tu es journaliste très très bien équilibré. Mhm. kuy gëstu nga. c'était pour défier les attaques contre la démocratie parce que un préfet. ñu naan décision préfet contre une loi de, dans la constitution bu demee du dem ba mu yàgg danga nga koy défier. d'accord li ci des. Mhm. ñun du ñu taal réew mi ah. ah waaye du ma nangu bu tegee bakkanam mën na taal ah, réew mi de. bu ci président taal tegee réew mi moom. ñun ay wolof lañu bakkanam ma ni ay wolof lañu. waaw sama bakkan laa ci teg mosoo ko wax mosuma ko wax keneen mu ko wax c'est parce que li nga wax ne juriste la mag la fekke na lu bare. mais qu'est-ce qui bu ñu defee délibéré mooy ñu taal réew mi xanaa àddina bi Sénégal amul ay partenaires euh, dans le domaine de de, de juridique. Mhm. xanaa des lois internationales existé wul. Mhm. mais yéen yéen ci seen bopp c'est vous qui êtes yéen yéen a tiit ragal defe na lu yëngu ñun dañuy lu ñu yàq réew mi. d'accord parce que nag ñaata marche lañ fi def. fu ñu ma see marche jàmm ak mhm. salaam. d'accord li ci des nag déstabilisation boobu ci yéen la nar a jógee. yéen a fi dindi droit yépp xañ nit ñi économie doxatal réew mi plongé ndax ab Ablaye Kombaam dépassé na doomam te ci fan yi mhm. dana am lu de woon àddina bi yëpp ne Kombaam dépassé na doomam fa mu yeggale woon Sénégal la mu joxoon doomam Macky Sall ak fi mu dugal Sénégal guta gi mu ko dugal muy dem di dem di dem di dem ba nga xam ne ni fi mu nekk nii amul koy ki ku waxal yàlla Mhm. xam na nii de réew mi doy na waar. waaw euh, comme ni ma ko ni ma ko ko waxee woon rek honorable député xam naa ni du ñàkk ma relancer la question yi parce que moom itam soulevé na fi lu am solo euh, ci ni mu ko ni mu ko waxee euh, mu aju ci maanaam taxawaayu président Macky Sall dem na sax ba dugg ci wàll yoo xam ni xam naa diñ ci tontu parce que bu demee ba bëgg a nekk pion wu ñoo xam ni taxawuñu lu dul indi fi góor jigéen wala yàq daara yi loolu di nga ci mën a indi ay leeral gi ci yéen la fare loolu tam wax na ko te mooy li nga xam ne wax nga ko ne du ngeen nangu dara di fi yëngu. man honorable bu ma koy déglu. moom nee na il est dessus man moi je suis pas dessus mais damay jaaxle parce que moom elle député di tenir discours boo xam ne dafay dafay remettre en cause la souveraineté du Sénégal. parce que bu toogee naan président de la république la ko fal jógewul Sénégal ca biti la jóge di wax ni bu ñu kon bu ñu jàppee Karim Wade wala bu ñu liwee dañuy xeex Abdoulaye Wade te ca biti la jóge loolu dafa mel ne dafay remettre en cause la souveraineté du Sénégal te le Sénégal et un état souverain. Renseigne-toi. le Sénégal est un état souverain loolu dañ ci war a bàyyi xel. loolu ngay wax <laughs> taxawul fenn te nopp yi am dégg. <laughs> ñoo gëm li ngay wax soxna si. arañ koo xam na beneen bi ci des. <laughs> soxna si da nga wax ni CREI yi wax Karim Wade wax man li ma jaaxal ci yëf yi mooy. organisme internationaux euh, internationaux yi nekk fii ak réew yi nga xam ne ay partenaires du Sénégal lañ moom moo ko tudd fii mais ñoom ñëpp ñu ngi ci mais amul kenn koo xam ne condamné ne euh, la la la crédibilité de la CREI. Oh parce que CREI ni nga ko waxee Abdou Diouf moo ko fi indi woon Abdoulaye Wade ñëw bàyyi ko fi. mais mm-hmm. supprimer ko maa ngi dégg fan yi benn koo xam ne xaritu président Abdoulaye Wade la di wax ni moom moo supprimer woon CREI yi. la loi 94. lu tax nga bëgg ko def xaritu Abdoulaye Wade maître Doudou Ndoye. xaritam ah, la loolu rek nga ko moo tax nga. <laughs> déedéet du loolu rek de. da jàpp ni ko li mu ci xaritoo la ko teg parce que ay avocat la ñoom ñaar ñëpp. xaritoo nañ mais ay xarit lañu. ak la du 2 février. Mhm. dane woon supprimer nañ ko mais 10 ans après nommé na ay nit ñu dem foofu. kon kañ loolu mënta ne da nga ne li supprimé naa ko tey dix ans après nga fay nommer ay nit loolu mooy wane ne la CREI est la et elle existe et elle existera toujours. Mhm. pour ñi nga xam ne ñi dañuy def nag moom boo gisee mu ne mu ne supprimé nañu ko boo xoolee ponk yi nga xam ne mooy ponk yi ñu samp muy atte ci réew mi. CREI bokk ci waaw lool moom lool moom c'est normal parce que la CREI est une cour spéciale. exceptionnel exceptionnel la <laughs> donc loolu bu ñuy def organigramme <laughs> l'organisation judiciaire da ngay jox raison ñi ko jàppee juridiction spéciale non non c'est une c'est une euh, juridiction spéciale effectivement mhm. spéciale mhm. c'est une juridiction spéciale boo xam ne dañ ko créer pour mu xeex contre la corruption ak aussi muy xeex contre l'enrichissement illicite beneen bi nga xam ne soxna si wax na ko léegi ma ciy jëm daf ne léegi la cas Aliou Sall mhm. Karim PDS ñu ngi ko créé ban année. du 1900 xaw ma 72 xaw ma 73 xaw ma 74. am ngeen 40 ans. Mhm. Mhm. Karim Wade kañ lañ ko commencé gis ci seen politique bi. kon xamoo Karim Wade. déet déglu mbaay rek ma yeggale soxla si en tout cas man. sénégalaise mhm. ak samay moroom. Mhm. bi ñu commencé gis Karim ci seen politique bi ci biir PDS mhm. yàggul boobu parti ma nga euh, président papaam ngay au pouvoir. mais ba mu nekkee à l'opposition di sonn ay doomu jàmbur ñoo doon ànd ak moom di ko xeexal di sànnanteeg moom kat ay xeer. ab euh, Karim dafa bàyyi ba yëf yi neex ba papaam nekk au pouvoir mu doogu ñëw kon nag il est très différent du cas Aliou Aliou Sall ba ñu créer parti bi en mille 2008 moom ñun ñoo doon ànd. di daw di wër Sénégal fu nekk ñu ànd fa fu ne ñu fanaan fa lekkandoo caaf lekkandoo ay mbiskit kon tey bu ñu demee ba taxaw mu am ambition nag pour sa localité. mais eh, waa Géejawaay yee ko woteel bu ko waa Géejawaay yi woteelu loon du doon maire de Géejawaay ah. c'est parce que waa Géejawaay yi dañ koo gis wóolu ko ah. xam ne ku bëgg dëkkam la ku am ambition ci dëkkam la ñu woteel ko mu nekk le maire de Guédiawaye beneen bi ci des <laughs> mais ñoo ko woteel rek mhm. beneen bi ci des mu ne Wade n'est pas violent waaw ah. Pape su loolu daf may jaaxal ndax Ablaye Wade hmm. forcer barrière de la police loolu lu yàggul loolu tey rek la mais hmm. am na yeneen yeneen discours yoo xam ne hmm. boo koy dégg toujours da ngay tiit waxuma la waxuma la violence verbale violence acte mais violence verbale bi rek day tiital nit ñi. en tout cas ñu bari tam jàpp nañ ni Macky kenn gënu ko violent de. <laughs> mais le président parce que le fait que mu dem ci ay élections à Fatick forcé pour voter jaay doole. te amul ci amul non loolu loolu yaakaar naa ni pour ngeen loolu pour ngeen tontu ci lu. il faut ñu koy relater. ah mais dama non non loolu c'est juste bëgguma mu ah, entre parenthèses mais waaw leeral ko après ñu continuer. il faut leeral loolu li amoon boobu ci élection c'était quoi c'était pas parce que amuloon carte électeur dafa ñëw di voter le numéro qui était sur le registre et le numéro de la carte il une différence président jury bi ne bàyyil ma woo président euh, bureau de vote bi ne xaaral ma woote xaw ma onel xaw ma lan pour laajte des renseignements. mu ne ko du xaar. mu ne ko man oma jotu nekk fii di xaar <laughs> dafa def voté il a voté ce qui est normal. <laughs> léegi beneen beneen bi ci des. parce que président bi li mu ko wax <laughs> daf may jaaxal. ndax violence verbale bi njëkkeewu ko tey rek ci président Macky Sall lay wadd xas na fi ku ne. Mhm. xas na fi imaam yi ñu ngi koy fàttaliku. Mhm. xas na fi église bi ñu ngi koy fàttaliku. barki Dembo Ndiaye Pape Ndiaye Pape Diop mii di woote euh, xaw ma lan retrouvaille de la famille libérale xas na ko fi xas yu ñaaw yoo xam ne man dama ko rus sax génne sama gémmiñ kon tey munul taxaw fii naan non wadd n'est pas violent Wade est un républicain Wade li <laughs> mais c'est bien beau Wade est un mais na ko doxee na ko waxee parce que en tant que républicain. Mhm. ni mu jàppee en tout cas yéen waa PDS sax laay wax ni ngeen jàppee politique. ak ñun APR ni ñu ko jàppee dafa ute. Mhm. ndax yéen ni ngeen jàppee politique mooy lan waxante lu ñaaw xas sante xuloo xeex noonu ngeen ko jàppee. d'accord ñun li ñu jàppee politique mooy programme. le président Macky Sall dañ ko élire sur la base d'un programme boo xam ne sénégalais yëpp dañ cee gis seen bopp mu ñëw andi beneen programme bu bees tàq ñu tuddee ko le plan Sénégal émergent te gis nañ ci ay pro ay jéego yoo xam ne lu leer nañ la da nga ne ña ko woteeloon weddi nañ ko mhm. soxna si da ngay nelaw de yeewoo go il faut ñu yee la yaa ngi nelaw nag nelaw yu xoot sax yeema parce que le président Macky Sall boo toogee fii tey naan ñi ko woteeloon weddi lañ ko ah. xanaa demoo Casamance ah demoo Ziguinchor berki de moo njaay la fa xew moo ni ah? moo ni ah waaw moo ni fan ñun ak yéen da ngeen di fay yéen a yore seen maletu xaalis di joxe moo tax ngeen yaakaar ne fu ñu dem rek dañuy joxe ay maletu xaalis. en tout cas Ablaye Balde nee na maletu xaalis ñu ko jiitu sax yor yi million di jox jigéen ña xoolal. Ablaye Wade dafa daw ab euh, Ablaye Balde dafa daw. waaw ah. bàyyi ba jaan jawee su mu topp ci. d'accord mais dama lay wax li mu wax da nga ni yéen yóbbuwoo leen ay maletu xaalis comme Wade ni mu daan def. mais moom su bëggoon a xam ne ay maletu xaalis la la ñu yóbbu dañ koy fekk ca dëkk ba. maletu xaalis la Macky Sall yóbbu. moom déjà loolu sax mënu ci wax dara ndax moom dafa daw. mais Pape am na mu fa jiitu dafa daw bàyyi ba jaan jaroo bu mu d'accord léegi ñun Ziguinchor Pape bañ fa demee. waaw dañu dem poser ay actes yu leer nañ. d'accord sur les doomu Casamance est-ce que xam nga ci est-ce que xam nga ci actes yooyu d'abord inauguré ngeen fa benn stade amul courant. donc mënul fonctionnel ba tey inauguré ngeen fa ay batu mënul daw nit ñi dem ñi ngi naan dañuy xaar lii ak lële donc moi je pense que bu ñu inauguré ba pare li gën moom mooy au moins nit ñi mën ko utiliser rapidement waaw Pape bi ñu inauguré léegi ça fait pas dix jours. Ah, mooy loo xam ne dafa war a fonctionnel automatiquement. ça va être fonctionnel. fonctionnel très bientôt. d'accord mel ñu ne ñoom de xam ne douze ans lañ fi nekk. <laughs> naan lii suñu programme la. Ah. lii ñoo ko signé lii ñoo ko def pendant douze ans ñuy xaar Sénégalais yi gisuñu dara. d'accord président Macky Sall bi mu ñëwee ak léegi. ça fait pas quatre ans. te def na fi ay jéego yoo xam ne ñoom bi ñu fi ci yow laay ñëw rapidement mais nag euh, xam naa ci tàggoo la bi jot na mais dama solution am na. Mhm. maanaam dañuy génn ci délibéré bi am solution. wala mhm. avant comme ni ko. Mhm. ni ñu ko prôné woon ci dialogue ndax jàpp nga ni solution am na boo xam ni mën na mën na indiwaat jàmm ci diggante ci biir politique bi. mais euh, tuuti benn incursion rek. bala may wax foofu nga xam nga dama ne la député nga am nga document yëpp. demal waaw parce que ni ngay waxe daf may rusloo. man fi may waxee ak yow fi ngay waxee yow da ngay surfer sur la crête des vagues. benn affaire euh, euh, CEDEAO bi foo ko teg. CEDEAO moo nekk ki nga xam ne loi bu mu wootee dañ koy internationaliser. dañ koy internet c'est au-dessus des lois mais da ngeen jël kayit ba sànni fala voilà léegi ñu ñëw ci. li ci des nag Pape dinañ amaat occasion man dama ne dama ne. Uh-huh. jàmm dafa war a am. d'accord te dañuy ñaan yàlla mu am. nan la mën a amee jàmm. au-delà Ablaye Wade ak Macky Sall réew mi ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk. effectivement. de la Karim Wade des autres des des gars de l'APR ñun réew mi ñoo ko bokk. tout à fait te nag ma chérie politique programme. le mm les a beaucoup les promesses y en a beaucoup. kon li ko freiné. waaw mooy li ngeen topp bientôt trois ans. waaw te dara génneegu fa pour da ngeen ni woon ay milliards la yu ngeen di jëli. pour dolli nga jàpp ni moom li ma jàpp moo de am waaw. waxkat yu ñaaw yi nañu noppi. waaw loolu seen côté les apprentis awa. waaw disons-nous la vérité rek. ñëppay wax mais ah, eh, xoolal ñiy jël de di euh, dëwlin sotti ci taal bi nañ ko baax. d'accord. ñi yaakaar ni tey la fi lii mas a am wala mas ko fee wax nañ ko bàyyi. Mhm. ñi nga xam ne dañoo naar fekkoon ñuy wax ci Ablaye Wade di jëf ci moom ñu ni pat tey ñoom ñëpp nàmm seeni gémmiñ. Mhm. di yokk di taal. ma ne jàmm ba àddinay baax. Mhm. dafa am lu ñaaw sax. nettali ko day kenn du ko nangu. d'accord te lu ñaaw bu jógee. dana am kilifa yoo xam ne danañ jóg wax. ku ci nekk ñu delloo la sa place. c'est bon wan Macky Sall ni kii sa baay la. te gannaaw yàlla. Mhm. ndeyam ca ci àllaaxira wax na ko ko yàlla na yàlla yokk leeram gannaaw yàlla. buñ naan Macky Sall tey Ablaye Wade tax te dafay sokkat ay moroomam dàqu leen a jàng uh-huh. góor bu li leen dara moo ko tànnoon d'accord ba tey uh-huh. yàlla def li gën waay waay waay na gërëm yàlla te wàccee xolam baal ñëpp soldaalam dem ba ca baayam ni ko baay nan waxtaan nga jàppale ma ci réew mi. loolu daal nga jàpp mooy solution. mooy solution d'accord c'est nga ni loolu mooy. solution bi mu jógee euh, solution bi. waaw loo loo xalaat nii après lay doon xanaa délibéré. wala bàyyi rek moom wax na ko léegi ndax mm-hmm. daf ne. Macky Sall na dem sa baayam. Mm-hmm. mais président Macky Sall Ablaye Wade daf ko jox cër. daf ko comme papaam. parce que wax ju rëy jii Ablaye Wade wax man de ku ma ko waxoon ma ñëw sa kër xeex ak yow <laughs> mais président Macky Sall dafa ne jéggal naa ko ndax jullit la te tam boole si daf ko jox cër li muy wax naan tontu tontu xale yu ndaw yi rek ñoom ñooy wër di tontu di wax mais président Macky Sall newul kenn tontu newul kenn delloo lu ñaaw mais na leen arrêté moom bu nee moom baale na doon ordre ñu ah, xale nag deretam day tàng pap ah waaw waaw day tàng ñoom seen xale yi lu ñu fi waxul abla euh, Macky Sall oh, kii ba euh, euh, lu nekk wax nañ ko fi Macky Sall Baara Gaye fii mm-hmm. Masali fii mm-hmm. keneen ak keneen mais li nga xam ne moo andi moo war a indi jàmm ji xam nga mooy lan mm-hmm. mooy président Macky Sall lañu fal à 65 pour cent. ñëpp nangu ko nañu ko may jàmm bàyyi ko mu dérouler programme am. loolu mooy jàmm ba 2017 ndax moom da leen defal bu neex sax. Mm-hmm. ndax dañ ko faloon pour 2019 pour 7 ans. mu ne leen dinaa wàññi mandat bi 2 ans def ko 5 ans 2017 bu référendum bi jàllee 2017 ñu dem élection buñ demee élection nag. ki gagné ñu xam ne moo gagné. te man xam naa ne président Macky mooy gagné waat. ndax programme am muy déroulé sénégalais yi dañ ko cee gën a. prochaine armade nga ci ak président. bañ a ànd ànd naa ci ak bu la assemblée nationale bu doon référendum ko bu ñëwoon assemblée nationale dinaa ko voté. parce bu ñëwoon du fa dina fa jàll sax bu fa ñëwee en tout ko voté xam nga lu tax. sama président dafa sàmm kàddoom. te man du ma assemblée nationale ñu dinañ ko jàll. mais référendum lay jaaree. voilà donc prochaine yi jërë mbokk yi jërë ngeen jëf mbokk doon ànd ak ñun ci spécial débat Faram Facce tey nag vraiment am nañu mbégte bu mag ni ko honorable député Awa Gueye waxee euh, ci semaine bi nga xam ne dañ ko jagleel soxna yi ñu recevoir leen ci mais yemoo itam ak initiative bi nga xam ni Faram Facce ak TFM bëgg nañu yaatal vraiment femmes yi ñoom itam ñu am cër bu baax ci émission bi loolu tax nañu kontaan ci ni nga xam ne noonu la ñu mënee bi ndax lépp itam mën nañ ko rafetlu donte ñeneen am nañ ci xalaat ñi ngi leen ci gërëm bu baax di leen sant di gërëm la régie Vieux Diouf di gërëm itam Babacar Fall ci ni mu jàpp ci émission bi di gërëm mbokk yi doon ànd ak ñun télévision Futur Média Awa Guèye la woon nekk vice présidente première vice présidente bu assemblée nationale bokk ci APR ak Ndeye Gaye Cissé moom itam bokk ci eh, comité directeur bu parti démocratique Sénégal nekk vice présidente bu conseil départemental bu Kébémer mbokk yi ñu leen di jox daje incha allah àllarba trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. auditeurs yi d'accord nañ. bu ñu si jógee du auditer samay doom.